mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen di leen euh, dalal ci jàmm ci seen bi di BNTV Sénégal ngeen tàmm ko nag di ci teewlu seen ay euh, programme rawatina nag émission yi jëm ci côté diine nag Massamba bay fal ànd ceeg ñoom Oustaz Babacar Oustaz Balla Dia aca tey nag euh, ñu ngi fii ci Kër Mbaye Fall ci toolu Dias war ànd ak waa daayira na bi daayira Ahlou Nabi nag ñu ngi nekk fii ci euh, juste rek ci bi euh, ci garage Kolando Tool Diassi euh, ñu war a def nag seen douzième édition gàmmu annuel ñu koy amal kon fii ci njiital imam Adama fay tey nag ñu ngi si waañ bi nii nee naa ko fi la ñuy tàmbalee gàmm gi ànd ak Samba ci caméra bi Samba Ba macha allah nag war a jël rek kon nag jëwriñu waañ bi rawatina nag ñu njëkk ci présidente bi jiite jigéen ñi si daayira bi muy soxna Amina Sarr ñu jël ko rek Samba su ko defee door a jëlaat nag mu laay moom it ma nga ca waañ ba sëriñ kon sàmm ñu jël soxna Amina Sarr daal di tàmbale moom waxtaan bi incha allah. Massamba ci caméra bi muy directeur production bu BNTV Sénégal ñu koy nuyu moom it baax a baax di ko ziare salaamaaleykum soxna Amina ñu ngi lay nuyu baax di la dala jàmm ci BNTV Sénégal. ñu ngi lay fay di la ziar macha allah di la dalal ci suñu bés bi bés bu yànj bi di suñu bésu gàmmu macha allah ñu koy màggal chaque année mu nekk suñu douzième édition. ñu ñaan yàlla commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin di la sant bu baax a baax di sant kilifa yi di sant waa karce bi di sant jigéen ñi nga xamante ne ci suba ba tey ñu ngi ci waañ bi kenn ku ne yaa ngi jàpp fi nga xamante ne foofu nga ne ñu sant xale yu góor yi ci daayira bi ak euh, daayira murit bi képp ku nekk Kër Mbaye Fall daal ñu ngi lay sant parce que ñëpp a fi teew ñu ngi ci añ yi instant yi Euh, ñu ngi teg añ yi léegi ñu sóor bu bu ñu añee ba pare ñu teg euh, reer bi bu ko defee bu ñu reeree ba pare ngoon si ñu def xadara kii bi xadaratu jumaa ji guddi gi gàmm gi. macha allah ñu gis nag euh, li doon wàcce mën naa ne at ba ay weer. ay semaine ba far nak ñi ngi ci bis bi ma sha allah nak di ñaan ñu égalé ko ko rabbil alamin eh, defoon nga dafa première bi mu jall tay nak ñi ngi ci bis bi nan ngeen wajalé waañ ak xéew li nga xamanteni sama mbokk pël war nañu xéewlu si nan ngeen wajalé waañ wañ bi mom xana di wo ñep wañ bi mom lepp li xéewal rek mu ngi fi sha allah parce que añ bi euh añ bi ni defe naa def nañu set mbanda set mbanda euh fuñ ko yek fu ne rek pël dinañ kontaan dinañ kontaan joolaay dinañ kontaan parce que ñoom ñooy suñuy kal pël laa war a falal xaw sama yaay pël la sama papa séeréer waaw léegi non faral séeréer yi xam séeréer ñoo xew tey <laughs> waaw ndeysaan macha allah yéen kàddu ngay sànni rek su ko defee ñu ah. joxante daje incha allah ba ci plateau bi ak sasa ah di ñaan jàmm rek di ko ñaanal mboolem jullit di la ko ñaanal yow mi nga xamante ne li nga sumb ni yàlla eggali ko ci euh, ci jàmm ak salaam ñun tamit euh, li nga xamante événement bi ñu commencé yàlla eggali ci bisimilahi rahmaani rahim ñu pare ko ci alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf ngi jox sa saa ci kanam rek bu ñu euh, juma incha